Euh, mbokki téléspectateur Ali Imran TV sang bu tedd bi ñu jàkkaarloo nag mooy maam Alpha Ba ñëw ànd ak xarit yeeg soppe yeeg taalibe yi ak waa dëkk ba yëpp ñëw siyaar si Serigne Assane Seck sang bu tedd bi maa ngi lay nuyu te di la ndokkeel ci guddi bi yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama tey nga ànd ak taalibe xarit yeeg soppe yi siyaar si xalif bi Serigne Assane Seck ndax mën na maa xam ban yëg-yëg nga am ci ànd ak waa kër geeg njaboot geeg taalibe yi ñëpp ngir ñëw siyaar si Serigne Assane Seck Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ziyaare xalifa bi muy Serigne Alxasan Seck xalifa général de Thiénaba di ko ñaanal yàlla jàmm ak ndimbalul yàlla di ziyaare itam woy juram Ceerno Jibrilu Alpha ma nekk ci wurmaadi yu moom itam nga xamante ni ci ay tànkam ci lañ ñëwee euh, yëg-yëg bi ma bi ma am mooy mooy bi ñëpp am rek ndax tey bés la boo xamante ne ay bokki jullit ñoo daje ay bokki diine ñoo daje ay bokk yoo xamante ne dañoo ànd ngir yàlla ñoom ñoo daje daje fii ci fi nga xamante nii boo xoolee cosaanam jamono dafa tumuranke woon maanaam diine moo tumuranke woon ñoom ñu wallanteeru def li nga xam ni moom la leen yàlla santoon te bu diinee amee jafe-jafe jullit ñi ñoo war a takku génne génne ko ci jafe-jafe bi ndax diine moom du am jafe-jafe nit ñi ñooy am jafe-jafe kon nit ñooñu ñoom la ñuy génn ci jafe-jafe boobu loolu nag la nit ñu tudde woon jihaat te jihaat moom te jamono yonent bi ba keroog addina tukki moo xam jihaat bi say fi la wala jihaatu nafs waaye euh, dog ci sa dund moom jagleel ko yàlla mënta ñàkk te loolu moo doonoon ànd bii ñu di ko doxal ba suñu jonn yàlla te yi kon suñ ñëwee ànd euh, ñëw toog fii war a dem ziyaara ji xalifa bi dañ koy ziyaara rek en tant que nit koo xamante ni nit nit cosaan li nga xam ne moom moo ñu boole moo doonoon laa ilaha illa moo tumuranke woon ñu bàyyi seen lépp àndandoo di wër ci réew mi àndandoo ci gox yu bari di fa liggéey te lañ fa doon liggéey commerce taxul woon wut xaalis taxul woon yàlla yàllay neen moo taxoon ba yàlla dimbali ñu tey jii ñun ñu bokkoon ca ñooña te mucc ci fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna kon war nañoo sant yàlla bu baax waaye war nañoo am yëg-yëg bu toll ni xam ni tey jii ñun ñëpp war nañoo bokk toog ci benn jotaay bokk ko ndax jullit ñëpp ñoo bokk seen lépp santandoo yàlla subhaanahu wa jërëjëf sang bi ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax jotaay bi yàgg mboolem li nga yéene ak li nga naan yéene koo liggéeyal lislaam bi yal na la yàlla may kàttan ak wér goo koo àggale ànd koog taalibe ak njaboot gi ñëpp jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf laay tanqatic an darsi shaykhika marratan wahdar min al-ihmaali war-rawagaani idhab ilayhi walaw bihifdika aayatan fal-waslu yurwii dillata ad-dam'aani caqiba as-salaati ihfad thalaatha asturin maca kulli fardin laa takun bil-waali thumma as-salaatu cala an-nabiyyi muhammadin maa marra waqtun fil-waraa wa thawaa